وسلمي سلم كل الكافر خيرنا إلا ثابت وآلي وسلم سلم في صدور نافذة خاطر قد نادى لمجد للجدار ومن بالوكام هو لا من غير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 ndax moo ne woon ginaar ba ci gileem. ndax moo ne woon ginaar ba ci gileem. nañ ko santalee sëriñ ci sëriñ nañ ko santale yàlla. nee na ginaar ba ci gileem nañ ko ko santale yàlla suñu borom. moo tax rek ñu ciy barkeelu. nee na loolu moo tax ñu ciy barkeelu. te sunu jàmbaar ja. nee na sunu jàmbaar ja. sëriñ Béthio. sëriñ Béthio Thioune. mel ni ba ci sëriñ bi woote nee ba ci sëriñ bi wootee. daa mel ni moom day bokk na ci ña déggoon. moom da daa mel ni bokk ñi nga ñoo sëriñ bi. woo déggoon woote sëriñ bi. ñoo déggoon woote sëriñ bi. waral rek. nee loolu waral. muy a aw ci ay tànkam. nee muy a aw ci ay tànkam. barkeelu rek. nee di barkeelu rek. ñuy ñaan rek. di ñaan rek. ah fan ko yéenee yóbbu. nee fan ko yéenee yóbbu. yàlla na nu fa sëriñ Touba àggale. nee na yàlla fa sëriñ Touba àggale. daaw. nee daaw. defoon nañ ko. nee daaw defoon nañ ko de. ren ren. xam nañ nii sëriñ bi teg nañu loxo yokk nañu. nee na xam nañ ni ren sëriñ bi teg nañu loxo yokku nañu ñun ñëpp.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 lu waay def. nee na lu waay def. sa bopp nga ko defal sa bopp rek nga ko defal. kon nag kon nag. maa ngi santaat bu baax. sëriñ bi nee mi ngi santaat bu baax. di sant ñi jàpp lépp rek ci ci liggéey bi. na ñi jàpp ci liggéey bi yëpp. sëriñ bi nee na sant na leen journaliste yi. nee na yéen yi nag. maa ngi leen di beral loxo. sëriñ bi nee na mi ngi leen di beral nuyoo. ndax. nee na ndax. coono bi ngeen tegoo ci ci ci yëf yi. nee na coono bi ngeen tegoo ci yëf maa ngi sant bu baax. nee na mi ngi sant bu baax. guddi màggal gi nee na guddi màggal gi gis ngeen bâche bi ñu def nee na gis ngeen bâche bi ñu def maa ngi woo cantaakoon yëpp nee na mi ngi woo cantaakoon yëpp ñu sant sëriñ bi fii ñu sant sëriñ bi fii guddi màggal nee na guddi màggal gi bu ko kenn wuute nee na bu ko kenn wuute nanu teel a ñëw nañu teel a ñëw nanu sañ sa njaboot gi nañu sañ sa njaboot gi sol yu neex sol yu rafet te sol yu rafet sol yu rafet xeeñ yu neex xeeñ yu neex te sant te fas yéene sant jaa na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 te ndax moo ne woon ginaar ba ci gileem. ndax moo ne woon ginaar ba ci gileem. nañ ko santalee sëriñ ci së nañ ko santalee yàlla. nee na ginaar ba ci gileem nañ ko ko yàlla suñu borom. moo tax rek ñu ciy barkeelu. nee na loolu moo tax ñu ciy barkeelu. te sunu jàmbaar ja. nee na sunu jàmbaar ja. sëriñ Béthio. sëriñ Béthio Thioune. mel ni ba ci sëriñ bi woote nee na ba ci sëriñ bi wootee. daa mel ni moom day bokk na ci ña déggoon. moom da daa mel bokk na ñoo sëriñ bi. woo déggoon woote sëriñ ñoo déggoon woote sëriñ bi. moo waral rek. nee loolu moo waral. muy jéem aw ci ay tànkam. muy aw ci ay tànkam. rek. di barkeelu rek. ñuy ñaan rek. di ñaan rek. ah fan ko yéenee yóbbu. nee na ko yéenee yóbbu. yàlla na nu fa sëriñ Touba àggale. nee na yàlla fa sëriñ Touba àggale. daaw. nee na daaw. nañ ko. nee na daaw nañ ko de. ren ren. xam nañ ni sëriñ bi teg nañu loxo yokk nañu. nee na xam nañ ni ren sëriñ bi teg nañu loxo yokk nañu ñun ñëpp.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 guddi màggal gi nee na guddi màggal gi gis ngeen bâche bi ñu def nee na gis ngeen bâche bi ñu def maa ngi woo cantaakoon yëpp nee na mi ngi woo cantaakoon yëpp ñu sant sëriñ bi fii ñu sant sëriñ bi fii guddi màggal nee na guddi màggal gi bu ko kenn wuute nee na ko kenn wuute nanu teel a ñëw nañu teel a ñëw nanu sañ sa njaboot gi nañu sañ sa njaboot gi sol yu neex sol yu rafet te neex sol yu rafet sol yu rafet xeeñ yu neex xeeñ yu neex te fas sant